ku ci sa soxna accouché boo laajtee doom bi lan la ñun la doom bu jigéen la nga ni dañ ko suul waaw ndax na wax ni jigéen def dul amal kenn njariñ mu ne ah, xanaa ca seen booba jamono la waaye bii jamono dafa mel ni jigéen ñi ñoo yore lépp waaw moo tax ñu daan lu seen doom yu jigéen ñi ba ca biir pax ma fa la ñuy faatoo yàlla nag nee na ci bis boobu dana laaj ñi doon suul doom yu jigéen yooyule ban bàkkaar la doom bi def ba ñu teg ko lu toll noonu waaye ku ñuy laaj ban bàkkaar la doom bi def ba nga teg ko lu tollu noonu moo lay xamal ni fekk ku ñu suul ba noppi nga déteere ko yàlla dina laaj bi ay yidan bi lan la def ba nga déterré ko di ko wax yàlla looloo taxoon fii nii bi ñuy ñëwee fekk ñu denc Khatib Touré fii ñu tëral la tëral del corbeiopo. man le lendemain lañ ma soog a saisir ñi ma kooru kaatim yóbbu nañ ko waaye waxuma ca ndax gëm ni ruuxu kàttim fa mu nekk n'a rien à voir ak kooram ñu yóbbu ko yóbbu ko yóbbu ko ba xam ne amatuñ ci pexe bërki démb lañ ko doon dencaat fii waaye fekk na nit ku nekk ak wërsëgam biñ ko jëlee yóbbu ko benn mag daf ma yónnee ndaw ni ma bis bu dellusee ñu war ko dugalaat ci pax nañ ko jàngal allahumma ya man azhar al jamil juróom ñaar fukki yoon tëflil ko ko ci biir pax bi mu soog fa dugg xoolal lool ndeke wërsëg boobu la doon xaar ah mu ñëw barki démb juma ci bi ñuy def xadaratul juma ma ni nañ ma wool juróom ñaari nit yu sell rek te wool ma imam Samba Diop ñu ñëw ma ni dem leen ngeen xottiwaat beneen perkal ndax perkal bu jëkk ba jëmmi ëwti ëwtee giñ koy ëwti ëwtee glace yiñ ko doon tëral pour ñu teral ko nañ ko jëndal beneen percal bu bees ñu lëmas ko ci soo ko dugal ci bàmmeel waaw ñu defal ko noonu mais loolu nekkul woon li ma jaaxal

mu ni ma nee nañu bu xew-xew yi daan am gàmmook leneen seen papa daf leen daan jox dog ci jaw kamal xoolal loolu te ay junney junni ñu di ay xaleel seen papa di leen ko jàngloo ni leen pour ngeen jàngal ko Serigne Moustapha ndax événement bi ñu yónnee Cheikh nag ni ko ndax am nañu diggal continuer ko wala déet xoolal lool doomam bu góor bi Abdou Aziz man maa ko yar ca daara ja waaye Cheikh day ñëw léeg-léeg dafay ree sax ba ko nee lan la mu ma xanaa Aziz Touré ma ko ah mu ma bi ma paree bay dem def ni ma Cheikh ma ni ko labbayka mu ni ma boo demee ni Sëriñ Moustapha ma ko ah mu ma yàlla na ko yàlla làq fa yàlla làq boppam ni ko ñaanu xale la de waaye kenn xamul loolu ba fan waaw ndeysaan waaye fekk ne ku nekk ak la nga doon ak la nga nàmp waaw loolu la donn ci seen papa loolu it la ñu nàmp ci seen papa مقدس إيه كنا bu fekkee ni هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا تسري شيخ وخني هل بي دو هلو استفهام يلا انت روجو تفعي كونفيرمي معنى هل اتى على الانسان يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر يلا نينا كان لن يكون سيدي تدونيتي ci gannaaw tuuti rek kenn doonul woon xam ndax nit dana am wala déet